wax nga ñu li ko Seex na Seex Saad bu wax. mais cofeelu Seex na Seex Saad ba ci Seydina Muhammad. cofeelam gi mooy inni uhibbu rasulullahi sayyiduna. loolu mooy lan. bëgg naa yonent yàlla Muhammad sang suñu. xubban taqaasar anhul maalu wal waladu bëggeel goo xamante ni boo tegoon banque mondiale fonds monétaire international teg. jël jongoma yee kër yi teg jël oto yi teg teg Seydina Muhammad ma jël am na leneen lu mu innal fuaada suqifa dégg nga innal fuaada sama xol suqifa bëtt na bi xubbi xayril mustafa fala miryata an ayaati nabiyina muhammad wa mucjizatuhu azhara wa abhara wa aksara wa abqa wa aqwa salla alayhi man wafa wa mansibuhu ala wa dawlatuhu alamu wa awfar law bi kulli ma waad cheikh na cheikh Saad Bou wa xayr pap dafa bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam ba amu ci sago xam nga dama leen la sànq bëggee gi mu bëgg Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ko doon ci baayam Cheikh na Mouhamed Fadil baayam Cheikh na Cheikh Mouhamed Fadil ibnu Mamin bàyyëg nga ni mooy góor gi nga xam ni moo am téeméeri doom kan Cheikh na Cheikh Mouhamed Fadil mi jur Cheikh na Cheikh Saad mi jur Cheikh na Cheikh Saad téeméer waaw téeméer macha allah man moom waxaguma la ci Cheikh na Cheikh Saad bu moo ñu jaaxal ba léegi. mais dinaa la wax ci baayam ba pare wax la kan mooy Cheikh na Cheikh Saad Bou. waaw akbar waxee di nga dégg tey loo musul dégg ci Cheikh na Cheikh Saad Bou baayam dafa am téeméeri doom téeméer xam nga fukk sax da am 53 doom yu góor doom yu jigéen 53 doom yu góor 47 doom yu jigéen 53 plus 47 muy 100 la Cheikh na Cheikh Mouhamed Fadel ibnu Mamin am. laataa mu koy am nag day jël téeméeri tur yàlla yi di ko tarbiya di ko tarbiya di ko tarbiya 99 tur yàlla yi di ko tarbiya ba yàlla may ko benn bu nekk doom mhm. moom Cheikh na Cheikh Mouhamed Fadil Ibn Mamin mu dund mu dund 74 ans mois 2 jours moom Cheikh na Cheikh Mouhamed Fadil Ibn Mamin génn àddina ñëwaat ci àddina am centième doom. Mhm. oustaz Pape am Cheikh na Cheikh Saad bu Cheikh na Mouhamed Fadil nii la def. dafa jur quatre-vingt-dix-neuf doom fii ci àddina moom bàyyu Cheikh na Cheikh Saad bu dee ba am un an ci biir bàmmeel di génn àddina di ñëwaat soxnaam di ànd ak moom ba jur téeméeri doom muy Cheikh na Abul Anwar te boobu fekk na mu génn àddina ci zahir génn na àddina ci zahir ba ñu suul ko ci xawdu ba denc ko moom Cheikh na Cheikh Mouhamed Vadul ibnu Mamin bàyyu Cheikh na Cheikh Saad bu waxa yo bu ñu nee Cheikh na Cheikh Saad bu nag Mm-hmm. da ngay xam ni moom. Mm-hmm. ak Cheikh Mouhamed Fadil. Mm-hmm. bokkuñu ci. mais mais Mouhamed loolu nag bëgg naa mu leer. dina leer nañ. <laughs> macha allah Cheikh na Cheikh na Mouhamed Fadal. kenn du moom. Cheikh na Cheikh Fadil ibnu Maamin wallaahi kenn du moom. Abul Anwar nga ne Abul Anwar. dama ne la am na téeméeri doom. waaw. doom la am ci àddina. dee ba am un an ci biir bàmmeel am centième doom. non da xaar xaar xaar <laughs> denc nañ ko. denc nañ ko ci biir bàmmeel génn na àddina moom Cheikh na Mouhamed Fadal. moom Cheikh na Mouhamed Fadal. mu génn ci bàmmeel. muy génn ci at bàmmeel bi guddi altine guddi àjjuma di ñëw ci soxnaam. allahu akbar. di ñëw di ànd ak soxnaam. soxnaam ni ko lii ngay def de neex na ma waaye bu ma sañoon nga acquitté ma ndax waa xawdu gii nee nañ. Mhm. da nga xaar ba nga génn àddina may def lu bon te man du ma def lu bon surtout Seydina Mouhamed la sallallahu alayhi te biir na la ni yow lii ma ëmb yaa ma ko teg mu ni ko noppil ñuy sël ba yowmal xiyaam lu ñu jur muy wëlliwu mu ni ko loolu rafet na waaye acte ma mu ni ko wooteel parce que faaw nga teggil ci àddina waaw waaw yéeneel ni leen guddi àjjuma man Cheikh Mouhamed Fadel dinaa génn ci sama bàmmeel ñëw ànd ak yow ba ñépp gis ma dugg ci saxaay ma bi toog waxtaan ak yow ba ñépp gis ma moom Cheikh Cheikh Mouhamed Fadel guddi àjjuma ndeysaan Mouhamed bi ni tàcc xar mu génn nit ñi gis ñépp di gis allahu akbar mais pap téeméeri doom mhm. neexut a jur de ah, du du du yi jamono de kenn rek la ko yàlla may ci àdduna yi jamono ba pare nag xam nga sant yi lu ci garaaw mm. ñépp di waliw ñépp di waliw ñépp di waliw góor jigéen góor jigéen ñépp di waliw allahu akbar xam nga lu tax loolu cey Cheikh te teelu leen a jur de daa xaar ba am 40 ans ah 40 ans yonent bi feeñu ko sallallahu alayhi wa ni ko yow sama sët lu tax doo jël doo jur doo jël soxna mu ne ko maam damaa bañ a jur lu dul waliyu mu ne ko jëlal soxna koo jur liw lay doon Cheikh Cheikh Mouhamed Vadel tëdd guddi gént tubéyam ëmb golob terrestre bi yëpp moo tax foo dem ci àddina am na sëtam moom Cheikh Mouhamed Vadel commencé jël jur abul fath mm-hmm. mm-hmm. seydi ousmane mm-hmm. mouhammad abbas mouhammad taqiyullah cheikh hadrame cheikh talib akhyar cheikh alwali wulu yango cheikh mouhammad lazaf cheikh hëya cheikh maalu aynayni cheikh jee cheikh bachir cheikh moustaphi cheikh mouhammad boulanwar cheikh talib boubacar cheikh mouhammad limam cheikh mouhammad al mukhtar cheikh al muslih cheikh mouhammad al mamoun cheikh mouhammad al maalum cheikh al xataab cheikh na cheikh saad bu feeñ mais mm. kon Cheikhna du taaw. du taaw du caat. allahu akbar. mooy vingt septième enfant di trente sixième garson boo dajalee góor yi Cheikhna Mouhamed Fadel moo ciy vingt sept boo dajalee góor ak jigéenu Cheikhna Mouhamed Fadel moo ci trente six. yàlla may ko moom Cheikhna Cheikh Saad bu mu génn ci téeméeri doom téeméeri waliyu yàlla tël turam bind ko ci asamaan. mais Mouhamed avant foofu. léegi nag ci yaay Abul Anwar. Cheikh na Cheikh Mouhamed Fadel Ibnul Mamin génn ci armeel yi di génn ci bàmmeel bi. waaw kay di ñëw di ànd ak soxnaam. Mm-hmm. di nekk ak moom ci xayma bi. ba ñëpp gis ko mu toog ak moom ba ñëpp xam ni kii Cheikh na Mouhamed Fadel la xeetu parfum bi mu daan xenc àddina ñu ngi koy xencu. Cheikh na Cheikh Mouhamed Fadel toog ba mu neex ko mu delluwaat ci biir bàmmeelam. ndax Cheikh na Cheikh Mouhamed Fadel Ibnul Mamin. yàlla may na ko. mu dee ci bëgg yàlla axadahu xaalul jazb bil bukaa i daaimi wala bi sa fiihi sittata ashhurin aw qariban min ha wa ma massahu maradun moom Cheikhna Cheikh Mouhamed Fadel dafa dund soixante-quatorze ans mhm. six mois yi mu day jooy ñun ko yow looy jooy mhm. mu ni bëgg yàlla mhm. taaliba yeeg doom yi sët yeeg jaam yi ñëpp dajaloo Cheikhna Mouhamed Fadel mu ni leen bëgg yàlla bëgg yàlla rek moo tax may jooy léegi léegi euh, euh, doom ji juddu ñu tuddee ko Abul Anwar waaw doomam juddu muy cinquième doom ñu tuddee ko amul anwaar mais ni mu génnee àddina ba am loolu laa lay wax ni loolu moom jomm ko moom cheikh na cheikh Mouhamed Fadil ibnu Mamin parce que shahidu xubbin fi qiyaasi fadlin azamu ajrin min shahidil qatli na cheikh Saad bu nee na nga bëgg yàlla ba dee ci bëgg yàlla mu ëpp fay nga rocc jaasi xare ba dar ñu rey la yàlla ni wala taxsabanna alladina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal axyaun inda rabbihim yurzaquuna yàlla nee na bul yaakaar ni ñi nga xam ne dañoo dee ci bëgg yàlla dañoo dee comme ñun déedéet ñu ngi ci seen bàmmeel yi yàlla di leen wërsëgal wërsëg googu soxna xaj na ci moo tax cheikh na cheikh saad bu ni wa shuhadaai inda rabbihim yurzaquuna wa yankixuuna yansiluuna ñi nga xam ne génn nañ ci toolu bëgg yàlla ñu ngi ci seen bàmmeel yàlla di leen wërsëgal ñuy ñuy jël soxna ci seen biir bàmmeel di jur yurzaquuna wa yankixuuna na moo tax cheikh na Mouhamed bokk ci góor yàlla yooyu moom Cheikh Cheikh Mouhamed Vadel baayu Cheikh na Cheikh Saad Bou laa ni la dafa dee ci bëgg yàlla mhm. six mois yi mujj ci dundam moom Cheikh na Cheikh Mouhamed Vadel day jooy rek ñu ni ko yow looy jooy mun leen bëgg yàlla mu xëcc loxo doomam Cheikh Sidi Ousmane wàcc ci resam ni ko inna kabidi saara fatatan min mahabbatillah mhm. sama res dog na man Cheikh na Mouhamed Vadel ngir bëgg yàlla Pape kii ma lay wax kenn du moom Cheikh na Cheikh Mouhamed Wadul. moo jur Cheikh na Cheikh Saad na Cheikh Saad bu. danaan def quarante danaan def cinquante rakka balaa géey bu jullee timis ba pare day def cinquante rakka bi ayatil mansuus waaye bu jullee gee day def téeméeri rakka téeméer téeméer yu mu jeexal wàcca ñeenti rakka yu mu jeexal wàcca kaamil téeméeri rakka yi pat ñeenti rakka la koy julli ñeenti rakka yu mu jeexal moom Cheikh na Mouhamed Wadul wàcca kaamil. Cheikh na Cheikh Mouhamed Fadil ibnu Maamin bu jugee këram di dem ci jàkka ja day wàcce kaamil bu jeejee jàkka ja di ñëw ci këram day wàcce kaamil bu toogee moom Cheikh na Mouhamed Fadil day wàcce kaamil bu soonoo loxo ndey jooram day wàcce kaamil bu soonoo loxo càmmoo ñoom day wàcce kaamil moom Cheikh na Cheikh Mouhamed Fadil ibnu Maamin moo tax Cheikh na Cheikh Saad bu ni cheikhi suyuuxi abi in kunta jaahilahu Mouhamadul Fadili dul fadli wal karami xanaa xamoo Cheikh Cheikh Mouhamed Fadel ibnu Mamin yàlla may ko moom Cheikh Mouhamed Fadel waa ji dafa ñëw ci moom ni ko damaa bëgg a mokkal alxuraan te jànguma mu xëcc noppam ni ci kë bàyyi ko ni ko loo dégg mu ni ko wallahi sami'tu qur'aanan tartiila mu ni ko wa rattilil qur'aana tartiila moom Cheikh Cheikh Mouhamed Fadel ibnu Mamin dafa ndur woon maamam sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw góor yàlla yi dañoo nekk ci jàkka ji guddi àjjuma hmm. moom Cheikh na Cheikh Mouhamed Fadil ñëw ci biir jàkka ji Seydina Mouhamed ñëw ci biir jàkka ji Cheikh na Mouhamed Fadil ibnu Lahbib taalibeem la di turandoom nee na maa ngi xool Seydina Mouhamed di xool Cheikh na Cheikh Mouhamed Fadil ibnu Mamin mënuma leen a distingue ngir nduróo moom Cheikh na Cheikh Mouhamed Fadil ibnu Mamin moo tax Cheikh na Cheikh Sadbu ni ko qaala Abu Abdul Aziz Saadu abihi lillahi taala alhamdu wabnu amini zil ula maamin xawsul wara min batni ummihil baraz baa yëg nga ni cheikh na cheikh Mouhamed Fadel ibnu maamin nekk na ci biiru yaayam naan laa ilaha illa allah ba waa xawdu di ko dégg oh. dégg nga xawsul wara min batni ummihi bërëb maamu shérif yi baayu cheikh na cheikh Saad bu laa la bëgg a wax nekk na ci biiru yaayam ba waa xawdu di ko dégg muy wax laa ilaha illa allah cheikh Mouhamed Fadel cheikh na cheikh Mouhamed Fadil ibnu Maamin mm-hmm. ba mu amee juróomi at mm-hmm. isa nastaxillu billahi wa yastaxillu bi zikri da daan ànd ak xalem yi moroom yi di foo yi waaye Cheikh Mouhamed Fadel moom du foo day fekk benn garab ci suuf mu toog jublu penku naan laa ilaha illallah kër gii nga xam ni kër xaadir la ci laa ilaha illallah lañ leen xam ci bëgg Seydina Mouhamed lañ leen xam ci ragal yàlla lañ leen xam Cheikh na Cheikh Mouhamed Fadel ibnu Maamin moom ñeenti at mu naan maa lii siwaaka ilaahi jëlis hmm. fakun wakun lii ilaahi anis anta anisi xay su kuntu mufrada hmm. wa anta unsi fi kulli majma'i ñeenti at quatre ans quatre ans mu naan aw ma ku may wéttali ku dul yàlla allahu akbar fépp fu ma wéttee yàllaa may wéttali waaye fépp fu ma wéttali ko yàllaa may wéttali man Cheikhna Cheikh Mouhamed Fadil ibnu Mamin ñeenti at ba mu amee quarante ans xutbaani bi dugg ci moom fees dell moom Cheikhna Mouhamed Fadil ibnu Mamin mu naan yàlla anta anisi xay su kuntu mufrada Hmm. fépp fu ma tourné yow laay gis wonte unsi fii kulli majma'i fa maa wallaa nii nay lii min ka mat nii la mat ma'i la maq na'i bëgg naa la yow yàlla subhanahu wa taala moo tax Cheikh Mouhamed Fadel hmm. dafa doy ba nga xam ni moo doon chance u di cheikh na cheikh Saad Bou di texeel àddina moom cheikh na cheikh Saad Bou di texeel jàmm ñëpp kado bi ku ko war a jur haatif bi day wër ci àddina naan kookoo war a daq jaamu yàlla ci àddina bàyyi nga ni góor yàlla yépp dugg xalwa Cheikh Mouhamed Fadil dugg xalwa deux minutes mu génn ni may kàddu bii de man maa koy jur ndax àdduna bi maa fi dàkka jaamu yàlla xoolal li ma la wax rek ci moom yëpp yëpp yëpp moom Cheikh Mouhamed Fadil ibnu Mamin nee naa la moom la Cheikh ne Cheikh Saad bu ni ñëpp bu ñu dajalee du doon sang yaay seen sang yow Cheikh Mouhamed Fadil ñépp bu ñu dajaloo di doon sang mm-hmm. yow yaay seen sang yow cheikh na cheikh Mouhamed Fadel ibnu Mamin ku mun a jur cheikh na cheikh Saad bu ponkal nga mm-hmm. cheikh na cheikh Saad bu amul ku ko sut min fawqi saadi sama zalla saadi murtafian fa ajaban li saadi sama fawqa samaai sama xanaa xamoo ni oustaz Pape Hann mm-hmm. moom doo nga war a judd moom cheikh na cheikh Saad bu ñu jël turam wékk ci asamaan bindoon moom doo war a judd Pape ñu jël turam wékk ci asamaan yàlla ya bu dugg xal way ñaan publicité bokk na ci ñaar ñi yàlla yonent bi defal na ko ko waaye defal na ko cheikh na cheikh Sadou. ku nekk ngay ñaan di ñaan ngir doon waaye juru Sadou bi Abdou kii ñu war a waxtaane tey mhm. yàllaa ko publicité boppam mhm. damay faral di wax nag oustaz Pape an musoo gis ku war a judd ñu jël sa tur wékk ci asamaan ku dul seex na cheikh Sadou dégg ngeen mosoo gis ku war a judd ñu jël sa tur wekk ci asamaan ku dul cheikh na cheikh Saad Bou asamaan si ah kenn jaralul yàlla mu fi jël tur di ko fa wekk ku dul cheikh na cheikh Saad Bou moom bon dong góor gi nga xam ne mooy borom kaala gi borom amaama bi góor gi nga xam ne dafa jeex tàkk ci ragal yàlla moom cheikh na cheikh Saad kii nga xam ne dafa seey ba jeex tàkk ci bëgg yàlla subhanahu wa taala moom cheikh na cheikh Saad moo war a juddu doon biddéew ñu bind ci saadu abi ruya ismuhu fii ala kawkabin maktubin bi saad góor yàlla yépp dugg xëlwa di ko ñaan yàlla may ko Cheikhna Cheikh Mouhamed Fadel waaye xam nga lu garaaw ba ko Cheikhna Cheikh Mouhamed Fadel amee léegi day des pour ñu xam yaayam Cheikhna Cheikh Saad Bou xam nañ baayam muy Cheikhna Mouhamed Fadel mhm. bi ñu xamee baayam baayam day xool ci kaw na bi ban jigéen moo war a jur gi góor mu listixaar yàlla wan ko Mariam di sëtu Seydina Muhammad bokk ci wulaadul biir mu bind ko lettre soxna Mariam gàntal mu bind ko lettre fois soxna Mariam gàntal mu bindaat ko lettre troisième fois soxna Mariam ni ko sa ñaari lettre yi jot naa ko waaye dama bëgg nga wax ma jox ma garanti ni bu ñu juree cheikh na cheikh Saad bu mooy gën ci sa doom yi ma nangu Cheikh na Mouhamed Vadul ni ko d'accord wax ma la samay doom waaye àddina moo ci gën moo tax cheikh ne cheikh saadu abihi ah kenn du moom de Pape Cheikh Diallo kii ñu war a waxtaane tey ah. wallaahi preuve preuve baa ngi da ngaa da ngaa teel a ànd ak àll mbir mi dugg la ba yaa ngi ñaq rek. wallaahi kenn du ci rek lépp waaye yaa ngi ñaq. wallaahi <laughs> parce que. Pape Hann ñaqul Assane ñaqul waaye yaa ngi ñaq rek. dimension dimension wu Cheikh na Cheikh ah. Sadbou. wa xeertu Chérif. moo moo màgg. parce que nee naa la. yàllaa ko publicité boppam. wallaahi sekk. moom Cheikh na Cheikh Saad Bou. waxeertu judd ci Cheikh na Mouhamed Vadul judd gu rafet. Mm-hmm. muy Cheikh. Mm-hmm. moom Cheikh na Cheikh Saad Bou. ñett a bokk ndey ak baay ci téeméeri doom yi. Mm-hmm. muy Saadaani. at su adu at Cheikh na Cheikh Saad Bou. bon ba su aadu feeñee. Mm. dañ koo indil Cheikh Mouhamed Vadil mhm. Cheikh Mouhamed Vadil ni leen de kii ku baax la waaye yàlla waxuma kii moom maamin waaw dem leen xool ci ànd bi mhm. boobu Cheikh na Cheikh Saad bu ngay sànn yaay mu wasin na ba ñu jël ànd bi bëgg koo sànni te lañu nar a sànni mooy Cheikh na Cheikh Saad bu ñu dem indi ànd bi Cheikh na Cheikh Mouhamed Vadil génn paakaam mhm. xotte ànd bi Cheikh na Cheikh Saad bu jooy mu ne xaw tuuti ngeen suul ki nar a texel àddina Cheikh na Cheikh Saad bu fa muy jooy ma ngay waxtaan ak yàlla naan alayna min arrahmani suwarun mudawwaru allazi maddal arda wa jaala fihi barakatal munawwara mhm. ya layta lana aw bushra lana aw man habbana wa habba saadana wa saadal xalqi xaatibatan kooku moom mooy maamu shérif yi mhm. moom nag mu dem ba am quatre ans teel a bëgg yàlla moom cheikh na cheikh Saad Bou mhm. teel a bëgg yàlla teel a aspiré yàlla teel a am amour divin di xencu rek yàlla génn moom cheikh na cheikh Saad Bou ni yaa sahiba yadaani inni ubaydun duaani zajrun bi nassil qurani an malafati nufuusi ô mes deux compagnons laissez-moi ô mes deux compagnons laissez-moi yaa saaxiba yadaani ñu ne ko lu tax mu ni inni uhibbu yaa saaxiba yadaani inni ubaydu daani man jaamu yàlla la zajrun bi nassil qurani yàllaa ma jàggi jox ma alquran an malafati nufuusi Cheikh Saad bu ni wa innani qad daani car en fait j'ai été par ma peur man Cheikh na Cheikh Sadbou mhm. xaw fii min yow mi tadaani ngir ragal gi ma ragal bis pénc an xubbi lëhwil xawaani mhm. yàlla nag jàjj gi ma jàjj daf maa moytuloo puukarewu borom alal yi an ma la fàtti bakkan la muy jàpp ngir mun ko mu mun koo teree jaamu yàlla mhm. xam nga ni bakkan di nga ko topp mu ba mu tere laa jaamu yàlla moo tax Cheikh na Cheikh Sadbu lim ñu jox muy laa ilaha illa allah mooy armam ci la defaree góor yi shahadatul xubbi tusammal kubra walqatlu fi ljihaadi huwa sugra kubrahuma min chartiha almuxaalafa li nafsi is min tabiiha almujalafa min gayri ruxsatin wala ida ma tatmain moo tax mu ni rujuuna min aljihaadi al asgari axiruhu ila aljihaadi al akbari cheikh na cheikh Saad bu nee na sànq li nga doon wax Cheikh na Cheikh Saad bu da koo mhm. dafa ne jóge nañ ci jihaat bu ndaw bi mhm. ñu ne ko ban mooy jihaat bu ndaw bi mu nu jàmm bi ni muy toppee bakkanam jàmm bi jihaat bu ndaw bi mooy di xare ak arme ak arme mhm. rujuuna min al jihaadil asgari axiruhu ila jihaadil akbari cheikh na cheikh Saad bu ni jihaad bu mag bi mooy nga noot sa bakkan orienté ko teg ko ci ihdina siraatal mustaqim ñu ne ko cheikh na cheikh Saad bu loolu lan moo ci gën a gaaw mu ni laa ilaha illa هو الجهاد الأكبر Cheikh Pape Oustaz wa tayyibi ruuhi bi tiibi haylala wa nawwiril qalba bi nuuri basmala jihaaduna huwa jihaadul akbar xam nga maam Cheikh na Cheikh Sadbu xeertu baat bii mooy jihaad bi nga xam ni moom la yàlla joxoon sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jihaaduna huwa jihaadul akbar ñu ko fasda bi ma tuumaru asdud bihi adduda wa daaliman wa safu bi zawri wal fashali jihaaduna huwa jihaadul akbar bi lii ma la jox muy laa ilaha illa allah wane ko ba ñëpp gis ko moo tax cheikh na cheikh Saad bu ni jihaaduna huwa jihaadul akbar jihaaduna huwa jihaadul akbar cheikh na cheikh Saad bu nee na suñu xare mooy xare bi gën a màgg jihaaduna huwa jihaadul akbar sirahuna hayla tukararu جهدا كبدا على خلاف أتانا من ذوي القدم جهادنا هو جهاد الأكبر جهادنا هو جهاد الأكبر maamu Cheikh na Cheikh Mouhamed Fadel maamu Cheikh Mouhamed Lamine Cheybata nee na jihaaduna suñu xare huwa jihaadul akbar mooy xale bi gën a màgg silaaxuna haylalatan tukarram silaaxuna haylalatan tukarram nee na suñu arme mooy laa ilaha illallah ji ñu jël di ko dàkkee noonu yi kalimatul maxalaxatun cheikh na cheikh Saad Bou nee na pour nan nga texe doo wax baat bii di laa ilaha illallah moom la ñu tudd cheikh na cheikh Saad Bou nee na képp ku texe képp ku yàlla gërëm képp ku bëgg ci laa ilaha illallah nga jaar irrévocable affirme la foi du musulman et absout les péchés la ilaha illallah wax leen wax yi qaala laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lahu lahu lmulku wa lahu lhamdu gafara allahu lahu alf alf sayyi'atin wa a'taahu alf alf xasanatin wa banaa lahu baytan fi ljanna wa hiya laa ilaha illa allah nee na képp ku wax laa ilaha illa allah muhammad rasulullah yàlla dina la jéggal ay junni junni bàkkaar sayidina muhammad nee na képp ku wax laa ilaha illa allah yàlla dina la bindal ay junni junni tiyaaba am yàlla tabaxal la ay soto àjjana moo tax Cheikh Saad bu ne di leen wax laa ilaaha illallah alayka ma lii nag ci jamono ji nga xam ni coronavirus la hayil hayilo sabran jamilan warida Pape Cheikh jamono ju nekk Cheikh na Cheikh Saad bu jàngale na ci xam nga ci jamono ji coronavirus lañuy la ñuy dund Cheikh na Cheikh Saad bu ni la balaa la mm. bu yàlla wàccee balaa wala musiba mm. iza qada allahu alayka ma qada bu yàlla dogalee lu mu dogal ci yow xëy lahu sabran jamilan wa rida gungee ko muñ gu rafet gu ànd ak ngërëm ñun ñëpp xam nañ ni jamono ji coronavirus la wallaahi sànq rek wax nga ni semaine bii am nañ fukki nit ñu ñu génn àddina wallaahi te muy balaa bu metti ah oui na Cheikh Saad bu ni la gis nga dafa bëgg yàlla moom Cheikh na Cheikh Saadu dafa gëm yàlla moom Cheikh na Cheikh Saadu bi dafa jeex takk ci yàlla subhaanahu wa taala moom cheikh na cheikh saadu ulxeer mu ni la wa jëmmin nafsa an il hawa inda xululil basi wa darai cheikh na cheikh saad bu nee na boo bëggee egg ci yàlla ngalaabal sa bakkan téye ko ci lépp lu neex ak lor mu ni innal musibata taji bil kufri illam takun maqrunatan bi sabri cheikh na cheikh saad bu ni la an nafs wa dunia habibataani laka wa lillahi gaduwataani borom ni zaata saalihin bàyyi cheikh taalibu yo nee na li mën a gaar nit ba du egg ca yàlla muy bakkan li la mën a indil problème muy bakkan. Hmm. bakkan rek moo la mën a empêcher pour nga dund yàlla gërëm la. wallaahi yàlla Cheikh Saad bu nag nii la boo bëggee yàlla gërëm la. ngalaa bal sa bakkan tee ci lépp lu neex. dara unaasal sukaara. wama hum bi sukaara. wama bi sukaara. lakin azaba usaara. lakin azabin ashaara. an maa la faati nufus. an maa la baa xam nga ni kii ñuy waxtaane génnul ci benn daara. moom Cheikh amul kenn ku ko jàngal. ñeenti at la am sànni Aliou moom Cheikh na Cheikh Saad.